Euh, jërë ngeen jëf mbokkente note sans limite dalee seen récap du jour ñu ñëw ak yéen ci li a fës ci euh, xibaar euh, xeex li nga xamante ne moom moo di góor jigéen fi ci réewum Sénégal lañu amal ni ki démb nag ci dibéer bi ba tax na nag mu bëri lool ci ay personnalité yoo xamante ne gis nañ leen ca marché boobu ñu rek def ay discours ñu ca gën a ràññee nag dinañ leen digtal ana lan la xalaat ca mbir moomu malaise bi nga xamante ne moom la président Ousmane Sonko daal di def nag semaine bi ñu euh, génn notamment ci euh, weekend bi jur na ab coow ba sax nag am na ku génn daal di wax ne loole daal ab manipulation euh, dong la loole itam dinañ ko faram-fàccee ci xibaar yi et puis problème Marème Dial contre Marodi TV ki li di James génnaat na rek daal da cay àddu ginnaaw ba ñu ko waxee ni rek dafa xaw a jéng ci ki nga xamante ne moom moo di Marème martre étudiante bi li di Lolita a fële ci Grand Yoff mu mel ni rek jeunesse congolais bu nekk fii ci Sénégal euh, dañoo rek jébal ab communiqué ngir wane na rek ñu ngi euh, condamné avec fermeté li nga xamante ni daal moo dal seeni euh, doomu réew moomu. mbokk internet yi pàcc yi gën a fës nag ñu ngi noonu ñu ñëw ak yéen ci jukkeeg xibaar ya tey ci altine bi yem ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mais xibaar ji lañ ko tàmbali ak marche bi nga xamante ne nii am na ni ki démb ngir xeex rek li nga xamante ne moom moo di borom ñaari tur fii ci bëri woon lool nag ay euh, personnalité yoo xamante ne nii euh, seen nañu leen fa ñu daal di ci ràññee nag discours Oustaz Alioune euh, Sall ginnaaw ba mu xam bi nga xamante ni nag tàmbali na ay kàddum ci kàllaama yi arab ci la wax rek ne ci tënk rek ni góor jigéen maanaam boroom ñaari du am fii ci ma Sénégal rassemblement bu mouvement ànd sàmm jikko yi leen nag li doon seeni sabab rek jamono ji moom moo di rek ñu criminaliser li nga xamante moom moo di wàllu ko fii ci réewum euh, Sénégal Oustaz Alioune Sall daal ci tënk lay kàddam bu euh, njëkk ak bi mujj rek moom moo di mbiram góor jigéen daal du am fii ci réewum euh, Sénégal bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi malaise bi nga xamante ne ni moom le président Ousmane Sonko daal di def fële ca Bignona nekk week-end bi ñu génn ci ab meeting daal bi nga xamante ne ni organisé woon nañu ko fa mu mel ni rek ab waay daal buy wuju turu bëgg baay bañkat génn rek daal di wax ca mbir moomu Euh, moom nag la cay xalaatam rek euh, moom moo di euh, malaise boobu daal lépp dañu ko préparer ndax buñ ko xoolee ba ca biir daal ab door kese la mu nekk nag ay kàddu yoo xamante ni nii daal moom jàpp na ni looloo am te sax nag ay jëmi jamono doon na génn rek def ay live ci page Facebook am di ci dénoncer rek manipulation yi nga xamante ni nii moom la jàpp ne rek parti Pastef ak kako jiite moom la ñuy def jamono ji mu jaraloon nag mu jaraloon leen nag ñu signaler page am boobule ba sax nag daal koy tëj waaye moom daal la mu jàpp rek euh, ca malaise bi nga xamante ne moom la euh, président Ousmane sonk daal di defoon rek moom moo di lépp rek dañu ko euh, tëgg ngir rek daal di dox ci xelu sénégalais yi ba tey nag ci mbiri malaise Ousmane Sonko bile ñu bëri nag daal di génn félicité ki nga xamante ni nii daal moom moo di Barthélémy Diaz nekk maire bu maire mu Sacré-Cœur ndax it ba mbir ma di am bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a jug Euh, Ousmane Sonko ñu gis ko nag ci vidéo yi ba tax na rek kile di euh, nit dof daal di génn rek euh, di ko ca félicité bu baax a baax ndax bëri na ci woon ñoo xamante ne nii sax jëloon nañu seen téléphone di film seen boobu moom nag mu bokk ci ñi nga xamante ne nii wax na leen ñu dakkandil rek la nga xamante ne nii moom la ñu nekkoon di def maanaam rek di filmer scène bi nga xamante ne nii daal moom moo jotoon a affolé ay partisans wu ki nga xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko na ci meurtre xale bi li di euh, Lolita Mole nekk nag euh, doom bu réew bu Congo nekkoon étudiante fi ci réewum euh, Sénégal ñu daal di koy nag euh, agressé daal di koy nag euh, faat fële ca Grand Yoff mu mel ni rek ab communiqué boo xamante ne nii daal jeunesse congolaise yu nekk fii ci réewum Sénégal fësal nañu ko ñoom nag lañ ca xamle rek rafetlu wuñu benn yoon li nga xamante ne nii moom la ñu jëlee bakkanuk xale boobule nga xamante ne nii dafa waroon rek def maîtrise am ni ki samedi bi ñu te sax nag la ñaan jamono jamono ji moom moo di rek ñu euh, def justice euh, conformément ak code pénal sénégalais li mu diktal rek ngir ñu euh, def ko bu weesoo loolu nag annoncé nañu itam ne rek dinañ jël ndogal daal di rek def ab collecte ngir mën a rek soutenir famille victime bile di Lolita Mole nekkoon étudiante fële ci ESP waroon def nag li nga xamante ne ni mom moo di maîtrise ñu ñëw ak rek ci affaire Marème Dial contre Marodi mu mel ni rek euh, ki la di euh, Jamil Gueye bu série Golden jotoon na cee euh, àddu rek ñu wër yi nag daal di koy accusé rek ne dafa euh, jéng ci côté ki nga xamante ne moom moo di Mariam Dial waaye nag moom lam ca euh, xamle rek moom di ñoom ñaar ñëpp la c'est normal sax nag euh, la mu wax daal fa la ca dara ba ñu ko laajee nag ndax ginnaaw loolu jot na am ay problème ak maison de production bi la di Marodi lam ca xamle rek moom moo di jàmm ak salaam dong lañ sekk ndax ginnaaw ba mu def postam boobu daal di soutenir ki nga xamante ne moom moo di Mariam Dial yoon di sax nag nag clamé leen loo xamante ni rek euh, jot na ca euh, wax ab mauvaise nouvelle rek moom moo di waaj euh, dikkali ki nga xamante ne moom moo di Adamo ci li ñu jot nag le moom moo di rek mboolim ñi nga xamante ni daal moom moo nekk ay victime am dañoo jël ndogal rek daal di koy porte plainte ba tax na nag ab avocat daal di génn rek daal di wax ne mën na ko toppee déjà pour ñetti chef d'accusation bu ci njëkk moom di injure publique beneen infraction boo xamante ni ni daal mën nañ ko ko toppee moom moo di diffamation maanaam waxal nit loo xamante ne nii amul ba tey nag ci mbiri Adamo bokk na li nga xamante ne daal dinañ ko ko toppee moom moo di rek diffusion de bi nga jël lekk image u di ko rek publier daal di nag yàq vie bu ñu sukkandikoo daal ci maître Fall la mu wax nekk avocat Barreau fële ca Paris itam Allemagne bi nga xamante ne moom la Adamo nekk la fay euh, sénégalais rek itam jël nañu euh, ndogal rekk daal di koy jàppale ci euh, combat boobu ngir rek kile di Adamo daal di dakkandil li nga xamante ne nii moom la nekk di def rek ci réseaux sociaux yi. waaw kan laay wax Adamo tubaab bi nanga ko waaw c'est mon ami c'est mon man Doudou Sène dama koy bëggee kooku nag mooy borom Allemagne Angleterre Espagne Suisse Japon Inde Corée. jàll Réfane ñëw Dakar dellu Thiès xoolal yaa moom fépp aadama yow daal xoolal yow dee dund rek man say dund man sama dund day eh, neex daal damay normal kon nag aadama dama bëgg nga wax ñi nga neewal duudu seen dalay seet si ànd ak ñoom per jóge mbóowul ñu ngi ñëw de wax amul dara amul mbokk internet yi foofu la ñuy jaaree daal di ndar képp xibaar yi cant ngërëm ñenn leen di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf